bàyyi tur wi ngeen koy wooye maa ngi leen koy ñaan bés ni tey ci ormay kii ñu fi dajale muy sëñ Babacar si sëñ Aboubacar si maa ngi leen di ñaan bu ko ko kenn wooweeti gis nga sëñ Abdou Lamine xeex na ko ba am junior rek lañ daan wax mu ne bu ma ko kenn wax mu ne xanaa mu ne mu ne dama romb bu koñ jàkka benn xale ne ma di di wax morom ko ne ko junior nga junior nga mu ne ma geesu ko ne ko maa mag sa bàyyi de moo ko nettali ñëpp dégg waaw mu ne ma geesu ne ko maa mag sa bàyyi de am na bés alaaji Abdul Aziz ca Tiwaawan la ko wax mu ne waaye bàyyi leen turu junior bi xanaa léegi grandi la bokk ah màgg na xanaa waaye yàlla suturaal na ko ba am na ko mu gi foo dégg rek sëriñ Abdul Aziz Al Amin baat boobu dara dàqu ko ci kaw suuf te muy baatu dëgg xaw ma ku ko créé waaye yàlla ko ko ilham Al Amin pire la ndax baayam wóolu na ko ba dem baayam turandoom alaaji abdul aziz wóolu ko ba dem magam sëriñ mansour wóolu ko ba dem magam sëriñ Cheikh Ahmad jaan si almaktum wóolu ko be dem rakkam yi sax wóolu ko xadara bi wóolu ko ñépp wóolu ko dafa consommé xilaafaam soog a toog kañ xaaj Malick nee na dafa consommé xilaafaam door a toog ces am nekk ak sëñ Babacar mu jóge fa mu nekk kook Alla Diaw mu jóge fa mu nekk kook sëñ Mansour mu jóge fa mu nekk kook sëñ Cheikh sëñ Cheikh ne ko man da nga doon lang ci ràppetu Alla sëñ bu Alla Diaw teg bu sëñ Mansour man du la jox permis parking bi laa lay jox mu ngoog del del forme chauffeur di di embauché. lay <laughs> kooku kenn du moom dama xam ne réew mi ni ñu bëggee xilaafa keroog bi ma toogee dégg sama nijaay naan moom it dafa dër ma tooñ ko mm, may xalifa kër gi léegi ne ah xilaafa yomb nga léegi njuufeen yi sax am nañ xilaafa <laughs> sama magu yaay la may xalifa kër gi léegi ma ne ah léegi de xilaafa lamb na ñépp a ngi naan xalifa nem njuufeen yi mën a am xalifa kon ñëpp fayen bi nag bu mu tax nga ree ñépp mën nañu am xilaafa wax dëgg yàlla nag waaye lu toll ni xalif général de Tijane te muy dëgg bosam yépp dëgg la waaye moo ci raw rawle ndax moo ko wax ci Tiwaawoon mu ne man ba may xalifa boobu xilaafa xewul moo ko wax sëriñ si mu ne ko toog ba nekk mag di xëccoo xilaafa mu ne la la raw bari na ba ngay gone la woon te mën mënatoo ko dabu benn naaru benn bu nekkoon ak alaaji Abdu mm-hmm. naar ba njuuma la ci muqaddam yi gën a mag ci dawaali yi ci la bokk sëñ Cheikh daf ko romb boobu ay vingt ans mu ne ko a ahmadu sud yow ahmad sud nekkal sang impératif la ci sayid sud nekkal sang fa sha'nu ko anta suuda yow sang rekk nga mëna a doon wa dus mahlan bi axmusika sauda ni ko joggil tànk sa ndëggal tànk teg ko ci kaw kaa ngi ñii seetaan nga dem ca kaw asamaan ndokkalante fa ak Haaruna Rachid xilaafa bi ne wa zaaxim fawqa haamaati tahani ila al aliyaai Haaruna Rachida ne walaw kaana alladi uctita yabgi mazidan kunta uctita almazida abuka huwa alxalifatu an abihi wa anta xalifatun anhu walida fa nilta sirra minhu wa nilta minhu sa sadiida ra'yi wa sa diida mu ne ko liñ la jox nag bu laajoon ndoleen te ñu la dolli ndax sa baay di Seydi Abu aw Aboubacar dafa nekk ba Seydi Hadj Malick mag fi ba dem mu mag fi doon xalifaam yow nag da ngay juddu rek bokk ak sa baay xilaafa gi ndax xilaafa eh, xaqiiqa la nga judduwaale gu gu aada gi soog laa dab te mooy mag fi sëñ Cheikh daf ni buñ nee ku mag moom ku ku kuy gone loo am am pierre doo moom waaw bu dof magee tey gudd fan nag fu nu jëm waaye moom loolu la ko yàlla defal <laughs> waaw wallaay ah tey daara ji saf na sàpp daara tabaarakallaahu gis nga eh, ci ci Serigne Cheikh ci bëgg njoboot wallaahi eh, ay wax yu kéemaane lay wax mm-hmm. wax yoo xam ne boo ko toppee rek yegg ci yàlla ndax orientation moo gaaw moom Serigne Cheikh daf lay teel a libéré waaw mu ne Serigne Babacar si daf ko xool ba yàgg ne ko yow bu sa maam doon dund yow lay jubóol ndax yéen a bokki affaire. dina di wax ak yow. boo fekkee woon sa maam dina lu jëllu di wax ak yow xam nga dafa woy Seydi Hadj Malick ni ko uhibbuka hubban xaalisan qad waristuhu wa xayru nasibi lay si ma warisa ni ko sopp naa la yow Seydi Hadji Malick cofeel goo xam ne dama ko nàmp ci sama yaay doon ko ci sama baay waaye maa ngi lay yëgal ni cërub gaynde gu mag gaynde bu ndaw a koy doon wa xayru nasibi lay si ma warisa chiblu xoolal loolu rek pour wan la moom ni mu dundee daar si ñàddu moom ay nettali Serigne Cheikh nee na moom rek la daan yónni nee na benn gàmm goo xam ne kañ Serigne Cheikh daf ko woo yónni ko ca euh, nu ñu koy waxeeti nee na Serigne Cheikh yónni ko ca côté Fajut yële nee na xaw naa dee ci yoon wi mu ne xam naa ne rek bu doon bu du doon kilifteef dee na mu ne ndax yoon wu njëkk wa maag Serigne Cheikh a ànd mu ne ñu jël gaal gaal gi xaw nañoo tuur ci biir géej ndekete mbokk séeréer yi bañ ñu yegg rek nee na ñu wàcc ñu takkal leen saret ne na saret yu màmm rek utali benn garab mu ne waaye bi mu yeggee bi jub garab gi dafa mel ni dañ téye fas wi mu ne sëriñ ma ne sëriñ bi tee ñoo wuññeeku lii dara jaru ko mu ne ma wuññeeku fan dee def di ñaar muy benn nañ dem nee na ñuy dox ak seen tànk ba min wi lañ door a yegg ci dëkk ba mu ne bi ñu yeggee mu ne ko buñ fëgg kenn nañ dem ca jàkka ja fanaan foofu nee na ñu yegg si ubbi jàkka ji rek ndekete mag ñaa nga jonko noonu di leen xaar ba ñuy ubbi jàkka ji ndax mu ne jàkkaay pet la dugg ca ne dañuy xaar fajar ku ubbi fekk leen fa mu ne mag ña riir fekk mu ne deuxième fois ba nag mu yebal ko nee na waaye ma daj lu ëpp lañ dajoon ñun ñaar nee na ma ñëw ne ko yow xanaa danga ma yebal pour pour ma dee sëriñ bi del xool fi nga may yebal mu ne ma lu ne defal naa ko ko ci kaw suuf sëñ moom ko nettali ci biir néegam Alamine mu di ma nettali mu ne ma dafa am góor gu nekkoon Tiwaawan mu ne ci dund Seydul Xaaji Malik la fa nekkoon newoon ci daara ji du tudd turam mu ne ba sëñ baabakër si ñëw nekk xalifa mu ne at yu bari sax xam nga sëñ Babacar si def na ndar ñaari at yoo xam ne jaarul Tiwaawan bi Maodo di door ak génn àddina ñaari at def na ko ndar yoo xam ne sëñ Abdou nee na day romb Tiwaawan fef ñëw ndakaaru bu jógee ndakaaru rombaat Tiwaawan fef dem ndar nee na ba doomi ndar yi naan kër baayam nga da dana gent ndax da wàcc na ko mu ne booba alaaji Mansour alaaji Habib ak alaaji Abdou la doon sobe pour mottali leen seen àlluwa sëñ Abdou ma ko nekk àll bi nee na ba bi mu dellusiwaatee Tiwaawan ci lu gudd waaye ñu gàttal ko nee na bi mu dellusiwaatee Tiwaawan moom sëñ Babacar mu ne ci ay at nag mu ne góor googu nag soppeeku ci diggante bi di ruuxle rek ruuxle rek tibb fii yóbbu fële wax fii wax fële mu ne bés ci ngay déggee ne sëriñ Babacar si ku daan julli ji waxtu yi juróom la man foofoo ma ñor ca jàkka ja léegi dangay gis koole gu tuuti gënt ñetti gënt yu neex rek teg kol dëngal mbaxan ubbi néeg maa la ko teg kol dëngal mbaxana ubbi néeg yor kurus gu gudd nag toog ca bunt ba teg siisam xulli ba di fixé benn place Oustaz changement liggéey nee na foo fekk wootekat fenkat lay doon Oustaz Malick moom xam na ko ca Thiès moom a ko waxoon mu ne ma ndax foog mu ut feem mu ne ma danaan xujju rek ñu naan arach lay xool mu ne te day fen jigéen ñi rek lay xool mu ne mu wala mu ne war a wala mu ut aw doxin nee na buy dox ñu meebal ko grand mbubb ci gannaaw mu mel ni ku yàq ay tànkam mu ne muy cenkem cenkeme nag di niroog lu kenn xamul bu Malick liggéey moo ko daan wax mu ne wootee gën a métti ci li yàlla bi mu ne ndax fen wooy makk yi la dafa métti woote dafa métti euh, daara ji euh, bañu ñu kenn nga nekk sëriñ waaye li mu wax léegi ci njëlbeeni waxam xay cap sëriñ Babacar si nee na weddiwu ma ne mën naa nekk de ndax yàlla koy joxe te innahu ala kulli shay'in qadir mu ne waaye ku ko def doo ko nettali dañ la koy nettali lay cëpp ne yàlla maa ngi mu ne mënul nekk ku ko def rek dañ la koy nettali waaye yow doo ko nettali mu ne góor gi nekk Tiwaawan di ruuxle rek mu ne ba bés ñu julli ji fajar bay wëññeeku gis làmp góor gi di tàkk mu ne sëñ kër si ne ko Abdou mu ne ko labbayka si mu ne ko diw mi góor-góorlul ba bu fanaan Tiwaawan tey génnee ko Tiwaawan seetal foo ko yóbbu rek nga tegal ma ko ndax fekk mu ci kër gi kër gi du baax kii yàqkat la seetal loolu ku ne sëñ Babacar si amee orma xam nga yàq ga ëpp na bon sëñ Abdou nee na al mu ne man xaw ma nu may def te ñemewuma teg teggi ndigalu sëriñ Babacar si nee na ma téléphoné Thiès ñu utal ma fa appartement bu baax nee na ma ut camion gaare ko dugal ci góor gi ak lu mu am ci bagaas jiitoog sama oto camion bi topp ci neena ma ñëw ba Thiès ci appartement bi ñu ma utal ma gaare camion bi gaare góor gi wàcc ma wàccee bagage yëpp installeel ko ba mu jekk ne ko Serigne Babacar si nee na nga xaar ko fii seetal seetal bii orma Serigne Babacar si nee na nga xaar ko fii nee na dal di wëññeeku ñëw mu ne loolu maa ngi ko def ci diggante tisbaar yor yor ak tisbaar mu ne 5 heures góor gi ñëwaat ak ay bagaasam wallaay cinq heures six heures mu ne góor gi ñëwaat ak ay bagaasam mu ne sëñ Babacar si boobu julli ji na tàkkusaan ba wëññeeku mu ne ñuy julli ji timis sëñ kër gis néeg bi góor gi di tàkk mu ne ko Abdou kii lu ma la waxoon ci moom waxuma la woon nga yóbbu ko mu ne ko wallahi si yóbbu naa ko mu ne lu ko indiwaat mu ne ah dégg naa dégg naa wóolu ma aw ci lu ma wóor dégg naa ñu ne ni ma nettalee rek lay nettalee waaye sañu ma ko sàllalu Serigne Cheikh mu ne ko dégg naa Cheikh Tidiane ko indi mu ne ko nañ julli ji ba noppi nee ñu dem julli timis wadifa julli gee wëññeeku mu ne ko demal wool ma Cheikh Tidiane nee na maa ngi tiita tiita tiita tiit nee na ma ñëw fekk Serigne Cheikh ci néegam mu ngi yër nee na ma ñëw nuyoo salaamaaleykum mu ne ma waaleykum salaam nee na ma ne ko ah góor gii lay woode waaye boo yeboo fagaru mer na de nee na mu ne ma waaw ah, wallaay mu ne ma maa ngi maa ngi ñëw mu ne ma déet dafa ne nañ ànd yow lay xaar nee mu ne ma xaaral ma yër ba ma jeexal li may yër mu ne mu jeexal li mu doon yër tëj téere bi sol dàllam ne maa ca ñu dem <coughs> nee na ñu ànd ñëw fekk sëriñ Babacar ngi toog di ñu xaar ci biir néegam nee na ñun ñëpp ñu toog ci suuf ndax mu ne ndax boobu sëñ Babacar a ngi toog ci deram nee na cinq minutes kenn waxut mu ne sëriñ Babacar ne ko Cheikh Tidiane maa la woolu woon mu ne ko moo tax ma wuyu si mu ne ko góor gi diw naa mu ne ko maa waxoon Abdou mu génnee ko yóbbul ma ko fu mu ko yóbbu rek baax na waaye na génn ci waawoon may julli ji timis gis ko ma laaj Abdou mu ne nee nañ yaa ko indi ndax yaa ko indi mu ne waaw mu ne Serigne Cheikh ne ko waaw maa ko indi mu ne ko lu tax nga indi ko mu ne Serigne Cheikh ko lu tax nga génnee ko mu ne Serigne Babacar ne dama ne lu tax nga gi indi ko mu ne dama lu tax nga génnee ko mu ne ma ne Cheikh dama ni lu tax nga indi góor gi mu ne ko si dama ne lu tax nga génnee góor gi mu ne sëñ Babacar si door a àddu ne ko dafa mën a fen day fen rek yàq na kër gi yëpp fen rek moo tax ma ne nañ ko génnee kër gi ndax fen yi dakk nee na mu ne ma ne ko fen yooyu tax ma indiwaat ko mën a fenam yooyu moo tax ma indiwaat mu ne ko ah mën a fen lu tax nga di ko indiwaat mu ne ko waaw kii jamono alaaji Malick ba tey mu ngi fi xam na lu ne te mën naa sos boo ko bàyyee mu dem la muy fen di ko yàq doo ko mën a wër di ko defar man mënuma ko ab doo mënu ñu bàyyi ko fii ci kër gi mu di ko fi fenee ñu di ko encaisser ma ne fen wu ñu mën a contrôler de bokkul ak fen woo xam ne borom doo ko booy fu ko neex dem sëñ Abdoulaye dafa wax lu am solo mu ne ñu ne ko bari na ñuy ñëw di la wax nangam te dañ lay nax rek mu ne xam naa ko de waaye nit ñi boo bawul ñu nax la ñu fexee la te nax yoo xam dugg ci bokkul ak pexe moo yëgul <laughs> xoolal bii xam-xam ah, mu ne sëñ Abdou Lahad ko ko ah, mu Si ne ko Cheikh waxaat ko mu ne ko waaw fenam yooyu tax ma indi ko mu di ko fenee fii ci kër gi ñu di ko encaissé moo gën ñu bàyyi ko muy fen ca àll ba te kenn du ko mën a defar mu ne Serigne Babacar si jox ko loxo ne ko wax nga dëgg waxati nga sax dëgg lay wax Cheikh mu ne dal di geesu ne ko Abdou mu ne mu ne ko demal gën koo defaral néegam loolu bu amuloon cër ci yàlla ñemewu ko ci kanamu Serigne Babacar ndax xam na loo xam ne bu lu mu ko jur jur bu amuloon cër bi bu koy wax yàlla wan ko xam nga lu tax maqaam bu mu donn la ca cheikh Mohammed al Ghali moom dong la cheikh ma Ahmed tiijaan yi mayoon ne ko lu la neex laaj ma te doo al ko waaye ku dul yow am na loo xam ne bu ma ko laajee ñu alal ko muqaddam yi laaj ko ne ko lu tax mu ne ndax kii am na martaba bi te shérif la xasani la incarné na ko lu ko neex na ma laaj lu ngeen bëgg a laaj te bañ caa yàqu laaj laaj wax leen ko ko mu laaj ma ko moom du ci yàqu mu dellu ca laatas tasalu an asiyaa im tubda lakum tasukkum laa an asiyaa in tubda lakum tasukkum yàlla ne bu leen di bari lu ngeen di laaj yonent bi am na loo xam ne bu ci àddoo rek du ngeen ko mën a supporter te man yàlla dinaa ko farataal bu boobaa. utrukuuni maa taraktukum bàyyi leen ma feeg ma di leen bàyyi moom yonante utrukuuni maa taraktukum feeg ma di leen bàyyi bàyyi leen ma waaw parce que bu leen ma laaj yenn yi te xamoon naa ko te xam naa ni bu ngeen ma ko laajee ma wax ko te bu ma ko waxee intu tubda lakum tasukum moom waaw waaw <coughs> ah moom kay nag moom yëf yi bokkul ak yëf yi wolof wa in tasalu anha hiina yunazalu alquran musiba am hmm, yàlla farataal ko te du ngeen ko attan waaw jeex na bi may jeexale mooy yéen jigéen ñi ko moom gis nga daara ji ñuy wax dañ leen di nax yéenay daara ji almaratu umul waxlet yéen kañ la ngeen juum rek seen liste bi ngeen def ko ba mu fees ak i góor ñii ngeen ko waroon a feesal al ummu madrasatun al ummu madrasatun ida aadataha aadata shaaban tayibal eh, araaqi xaafid ibrahima moo ko wax eh, ahmad shawqi mu ne wa ida nisaau nachana fi ummiyatin radaa rijalu jahalatan wa xumuula mu ne jigéen buñ ko yarul jàngaluñ ko ku nàmp sowam sowam dof nga nàmp ndax nee na ki lay jur ba juróom-ñaari at li muy takkook ndeyam du ko takkook keneen malaan mu weex tàll ñu jox la ko juróom-ñaari at lu ca tâche yaa ko ca def moo tax mu ne nañu pare jigéen ñi jàngal leen yar leen ndax jigéen école la boo ko préparé pare nga préparé nga tout un peuple waaw si naa lii ni fukki góor yu yàqu moom a gën a jenn jigéen ju yàqu waaw ndax jigéen mooy ndey waaye dafa ñëw ci yonent bi ni ko sama ndey ak sama baay ku ma ci war a jëkk a defal njëkk mu ne ko sa ndey mu ne ko sa ndey mu laajee ko mu ne ko sa ndey mu laajaat ko mu ne sa baay mu ne ko waaw lu tax ñetti yër yëpp sa ndey mu ne ko moo ëmb moo wasin moo nàmpal te bàyyi deful yooyu moo tax ma wax la ñetti yoon moo ëmb moo wasin moo nàmpal te góor defu ci benn ci yooyu waaw <laughs> te ba ma jox la bu gën a garaaw sax xale bi day jooykat nga nekk ci néeg bi naan ko yow naxal sa doom ji xanaa bokkoo ci yow bokkoo ci du sa doom te wallaay liir bari na benke benke benke ñenke yoo xam ne billaahi bu ko jigéen joxoon baayam ñetti minute ñetti waxtu rek mu dox ñetti waxtu rek dara du ko mën a nax buy jooy xamul nu mu koy naxee sax foofu moom la Serigne Cheikh wax ne jigéen yàlla dafa xool góor xool jigéen nee na jékki ne ah, góor daal yëg naa ci moom ak rambax goo xam ne su ma ko dënkee li ma soxla mu tuur ko ci benn bëccëg baal ma jox ko jigéen ndax ko tey la mu ne mu jël biiru jigéen nag def ko atelier ngir fas yéene tabax ci kim gën a fonk ci àddina te mooy nit mooy li Xaaj Maalik wax léegi xamalatuhu ummuhu karhan wa wadaahtu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu fi aamayn an ishkur walidayya alquran dara melut ni moom man góor ni mu bu ëmboon buy am weer di avorté ndax rëbax rëbaxam waaw jigéen góor jigéen la wóolu ci atelier bi muy liggéeyee nit kon jigéen dafa tinkoñ maanaam yàllaa ko binde noonu nag góor mënu ko moo tax jigéen yee wala naan yaa yepp ni ni góor bu giir <laughs> waaye góor bu doon ëmb àdduna tukki mu ne bari na it koy xas jigéen téye woo sa kumba si nangam nangam mu ne yàlla suturaal góor ba du biir waaye bu doon biir kon àdduna tukki da gis ku tukki yàgg fa lool ñëw di sikkal sa jabar ndax am yoo koy jiiñ waaye bu góor doon biir yow ay doom yu bari ngay indaale boo ñu gisee wallaay conférence bi yéen a dàq conférence tey ci eh, te gis nga yàlla dafa dafa gis nga boobu xamalatuhu ummuhu kurhan benn wa wadaatuhu kura wa xamluhu wa fisaaluhu fi amayn ah anishkur li anishkur li wali yàlla ne man mi def loolu nag sant ma boo ca noppee santal sa ndey ak sa baay ci sa ndey la jiital ne ak baay ah Serigne Cheikh ne buur bu tol ni yàlla buur bu tol ni yàlla xool benn biir ak ni biir xaj yebalul kenn mooy ñëwal boppam ci doomam moo tax mu ne jamono bi nga xamee ne ku judd ñu rey ku judd ñu rey ku judd ñu rey wala ñu gas suul mu ne ca Faas Cheikh Seydi Ahmad Tidiane génnee décret xoolal ca jamono booba moo tax yàgg ji ëmb ci lutul jëkkër yàgg na fi Serigne Cheikh ne Seydina Cheikh dafa ni xale yi ñoo jur bi leen rey pour la daldi woo arab yi ne ko dënk naa la jigéen ñi nga xam ne dañuy jur doom di ko sànni de récupérer doom yooyu am foo leen yóbbu yar leen fa seetal ca yooyu jamono mu ne ko bàkkaar bi benn la bu ko def ñaar bàkkaaru ëmb bi doy na waaye ëmb ba pare nag mu ne am bàjjan bu tëxër rek naan gàddu boppam naan woy sama ndey xaw ma fu ma koo waxee tax nga yóbbu ko sànni ko wund yi di ko xëccoo te innocent la deful dara ndax benn bàjjan bu tëxat rek nan la xaw ma fu ma jëm lii mosu fee am mu ne xamoo sa bopp mu ne boroom loxo bu tedd bi moo ko defar dinaa leen ko tegal léegi muy muy muy last pot li anglais di wax last pot ñun buñ tëjee buñ tëjaan bu jàngaan ba tëj école dañ koy def laas bu boobaa nag tappet du du jàngi keroog. nga lan dañ lay napp boo ragalee danañ lu duur dóor yoo xam ne boo ñibbee doo ko wax waaw dañ lay napp dañ koo mën rek danga koy napp. la dóor ñëpp wala ña lay dóor du bari dañ ya yaakaar ne daara mooy ki jël àlluwa rek teg ci luppam wala ñu téye ci loxoom yóbbu école. walla wala nuñ koy waxee ci jardin d'enfants loolu du daara daara bi njëkk mooy li Xaaji Malik wax bi nga amee doom teg ko ci say penk yow yaay daara ji njëkk ci di ko nampal mu di la xool nga di ko xool boobu premier daara foofu lay baaxee ba faw foofu lay bonee ba faw te xoolal li Xaaji Malik wax te mooy dëgg summa amaatahu summa sabila yasarahu lu ko jiitu indil ma ko xutila al insaanu maa akfar oustaz mbayka mu xam ko bu baax xam nga léegi dafa ne Ousmane Dam Fooji sama maam la wax na dëgg ndax Alaaji Ahmad dem Sokone moo tax sama maam la te moom mbokkum Alaaji Ahmad dem Sokone la ci sama wàllu ndey yàlla yóbbu woon ko mbaq ko mu teere ji Nigéria lu ne def na ko fa ci kéemaan Ousmane Dame Fodji demoon na ba taalibeem yi ku ci bëgg dara danga naan ci barke Ousmane Dame Fodji rek am ko yeggoon na fa ci wilaaya waaye bés la ko dina Cheikh feeñu ne ko boo artuwut sa taalibe yi li ñuy ñaan ci sa barke ma rëq sa ndigg ndax ëpp na loolu tax sax ñu bari di turam mujj siiwatul waaw ah, moo tax ñu bari turam mujjul siiw waaye li mu amoon ci taalibe ëpp na cent mille taalibe ëppoon na ko ñii ne ni ay million de taalibe la yoroon Ousmane Dame Fodji dem la sant mbokk mbokkum Alaaji ma dem la dégg ngeen ko waaw jamaal waali gi mu bëgg ci Fuuta mooy jamaatul awliyaa yi ñu ne jamaal waali ñu ngi jeexal waaye mbokk yi li ma leen bëgg a xamal rek mooy xoolal li yàlla wax oustaz Mbaye Ka dafa ne mag mu toll ni yàlla bind nit te sàkkuwu ko mooy li Xaaji Maalik wax man ja ci waxtaanam rek laa sukkandiku mooy lim wax ci njëlbéeni waxam kenn sàkkuwul ci yàlla pour nekk nit waaye waaye bu neexoon yàlla mu def ñu xari tabaski kon tey jii ku nekk yaa ngi xalaat yow la ñuy tabaskee walla déet ah? xaru tabaski sax am na valeur waaw ku yàlla defoon ci ñun nattoo la nga nekk mbaam xuux nekk ci biir euh, euh, potopoto poto yi nooy def wala yàlla nattoo la nga nekk yoo foo romb ñu tàpp yàlla tegg yooyu yëpp ne nit laa lay def ndax nit laa gën a bëgg ci lima ma bind yàlla ko wax ci alquran moo lu mu wax wala qad karam naa bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdilan yàlla ne li ma bind nit laa ci gën a la te moom laa ci gën a bëgg loolu doyul mu boole la ci nit mënoon na la boole ci première génération nga dem ca yu noox aadam muusa isa haaruna ilias yaqub daawud mu bàyyi ba dernière génération sayyiduna muhammad mu boole la ci boole la ci kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu tax lii tey taamuruuna bil maarufi te ñoom amuñ ko woon wa tanhawna anil munkari wa tuuminuuna billahi wal yawmil axir mooy lii ñuy def daara ji lii daara la ji xayri gi xayri yee gi mi ngi tege ci kaw responsabilité bi de. waaw jeex na ngëneel gi. ah ci chartu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar di dégle lu baax di tere lu bon di bàyyi lu bon di ko tere di jëkk ci lu baax di ko dégle moo tax ñu baax inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahula lu tax li yuadiba allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminat lu tax wa kaana allahu wa kaana wa kaana allahu li yuadiba allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikati wa yatuuba allahu ala almuminina walmuminati wa kaana allahu gafuran rahima ñun li ñu am xamuñu ko amaana boobu mooy kóllëre gëm yàlla yàlla dënk ko ko asamaan ak li muy réy mu ne ko àttanuma ko fa abay na ji mooy àttanuma ko bañuñu ndax buñ bañoon yàlla du leen duñ existeeti dañ ne yàlla àttanuñu wal jibaalu mu jox montagne yi ñu ne àttanuñu fa abay na an yaxmil naha mu ne ma dëkk ko nit rek mu ne ko jox ma wa xamalaha l insaanu mu ne innahu kaana zaluman moom ko laaj tooñkat la jahulan ku ma réere la man yàlla mu ne na ko wóor ne nag moo jël responsabilité bi li yuadiba allahu almunafiqina kii triché danaa ko duma naafeq mooy triché tricherie pire mooy naafeq li yuadiba allahu almunafiqina wal munafiqaati tricherie yu góor ye yu jigéen yi yàlla ne danaa rëq seen digg wal mushrikina ak ñi ne awma bant bee fi nekk wal mushrikaat yi ca jigéen ña ca góor ña mu ne waaye nag wa yatuuba danaa nangu tuub ci ki nga xam ne moo ma jox boppam ma féetewoo ay mbiram humul muminuuna wal muminaat ñu ne ko lu tax mu ne wa kaana allahu gafuran rahiman may kiy yërëme may kiy jéggale te yaa féeteeg man allahu waliyu ladina amanu yuxrijuhum min aldulumaati ila annuur walladina kafaru awliyaauhum altaaxuut yuxrijunahum min annuuri ila aldulumaati ulaika ashaabu nniiri hum fiha xaalidun moo tax nañ ci bàyyi xel bu baax feek ñu ngi def lii ñoo gën buñ ko defatul gënuñ kenn taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkari wa tuuminuuna billahi wa rasuli condition la moo tax daara jaa ngi nii yàlla nag xoolal responsabilité bi mu jël oustaz Mbaye Ka ne mag mu toll nii yàlla bind nit mën ko rey te dara du ko ci fekk mën ko alal te dara du ko ci fekk mën ko def nayam kenn du xam fu mu féeteeti mu xool nit ci naan sàngaraam xool nit ci mën a njaaloom xool nit ci mën a fenam xool nit ci mën a sàccam xool nit ci mën a rambaaj xool nit ci mën a yàq xool nit ci mën a di boole ay diggante ba yàq ko dox ko ba tas ko mu xool nit ba jëppe ko ne xutilal insaanu yal na nit dee yàllaa wax de man waxuma de jëppi nit ba ne yal na dee maa ak fara lu tax mu di ma weddi man yàlla ah sañse bee rafet nga génn ñu ne la lalal naa la moo la beewloo en 4 x bi nga bi nga gaare moo la bewlo en portefeuille ministère bee la boobu bewloo ah léegi yaay député maire bi moo tax nga bew ah ñu ngi lay rang naan Chérif Aïdara Karara ba muy xaleel la ko yaayam ne woon Karara moo la tax a bew ah yow Chérif nag xamoo sa bopp yow Chérif xamoo sa bopp de attention min ay shay'in xalaq ah Karara jee tax ngay duuf duuflu xoolal sa bopp ci biir ba ci biti ci lu ma la bind min ay shay'in xalaq ci lu ma la bind may diit diite la ko nuur boppa seet lu may wax mu ne ma siggil du dañ laa jey rek siggil ma wax la sa bopp maa la bind ma ne ñu xeet siggi mu ne ma min nutfatin xalaqa maa ngi la bind ci toq ma niyu boo xam ne ba mu génni say ñaari jur dañoo raxasu ji may wax ne ñetti raxasu yi ku muy dal looy rëy rëylu looy rëy rëylu ba nga juddoo sage-femme yi la gàttandu dañu raxasu léegi laa dugal néew ci bàmmeel de léegi rek léegi léegi ci yor yor bu jógee Italie sama rakku soxna maa ko dugal ci bàmmeel léegi léegi bu jigéen léegi ci yor yor man maa maa njëkk dugg ci bàmmeel bi ma bi ñibbisee damaa raxasu wala déet ña lay sang boo génnee àddina bu ñuy paree raxasu ji waaw ñetti raxasu yi li ci diggante bi lu ko fi jàpp ah bi nga juddoo dañoo raxasu boo faatoo ña lay sang buñ paree raxasu ji te dañ sopp sax buñ paree ñu sangu farata ñoo ñoom ñi la doon sang dañ sopp buñ paree ñoom ñu dem sangu ji farat ndax néew bi boo koy sang dafa am ferñeent yuy génn ci moom dafa ferñeent yuy génne ci ñoom yemuñ de léeg nga tuur ndox néew rek nga yëg ne mu ngi bëgg a jóg moo ko amul bopp waroo di sang maa la ko wax dafa benn waaye ngeen baal ma def entre daara ji la rek bu doon sang néew jigéen jigéen la comme moom ñëw ba ci awraam di ko raxas wax ci xolam rek ne awra bu mënoon a mooy yàllaa ngi ni loxo bi ne tàpp ci awra ba mënatul génn mu xacc xacc mënatul génn mu xacc xacc mënatul génn càng mi yàgg lool gaa yi fëgg mu ne leen sama loxo mënatul ak bouge ñu dem ci imam Malik wax ko ko ñii ne dañuy dagg loxo bi bàyyi koog néew bi ñii ne dañuy kuppati fi loxo bi takk ndax néew bi dee na ba noppi imaam Malik ne leen déedéet ñu ne ko kon nu ñuy def mu ne dafa xas gor da ngeen koy caw juróom-ñett fukki yar biñ koy caw quatre-vingts coups quatre-vingts coups bi ba muy mat quatre-vingts rek la loxo bi ne tël génn te ñun ci xas gor rek lañ dëkk ñun ñëpp ci xas gor rek lañ dëkk koo xamalu dara YouTube bi jël sa dara rek balancé ko ci biir wax ak sa morom ci secret mu wax nga wax nga effacé la nga wax envoyé li wax weerante rek di wax ak nit ne ko yaa ngi koy filmer caméra cachée pare ne ko watti ci internet bi. secret amatul secret amatul. sécurité amatul. secret amatul sécurité amatul te ñun rek ñoo ko waral. zahara al fasadu fil barri wal bahri lu tax bi ma kasabat ay dinaas yàlla ne lu bon fes na ci géej gi fes na ci jéeri ji te kenn fesalu ko lu dul yéen jubluma ci yéen ñi toog nag damay wax rek dégg ngeen kañ ci jeexal gàttal mu ne fu ma yemoon sii xutilal insaanu maa akfar yow shérif da ngay funki funkilu ndax ay dara ji ak ni la nit ñi bëggee tax ngay funki funkilu ba fàtte na min ay shay'in xalaqa ci lan laa la bind yow shérif may diit diite la jaay maana mu ne ma siggil ma xool la ma siggi mu ne ma min nutfatin xalaqa maa ngi la bind ci toq ma niyu sperme boo xam ne ba mu génnee sa yaay ak sa baay dañoo sangu maada takabburu alaysa tiinu wal maawu aslaka ayaa fa tiinu luy rëy du ci ndox su tilim nga jóge ak ban bu ñuul kukk ayaa fa danga war a am nag am xel man ma ngi jóg ci fitnatu danga war a am xel xoolaat foofee nga jóge waaw maada takabburu lu war a rek ngand ngandalu gi alaysa tiinu wal maawu aslaka ndax du ci ban nga jóge ak ci ndox mu tilim kon nag maasa takabburu bu kon moom daal di sëñ Cheikh wax rek nee na nit dafa war a yaru xam boppam nee na sëñ Babacar daf ne buñ la yaree nag bu wóolu sa yar boo dajee ku yara di ku ne la ah, kii ya taxoon ñu ma yar nag nga ëmbaale ko ci sa yar ba reewandeem du feeñ nee na boo demee ba naw sa xam-xam di wax ak nit ni ko xamoo tus nee na yaa moome keroo fexeel ba bu ñàkk xamam feeñ ëmbaale ko ci sa xam-xam boo ko nee amoo tus yaa aye fexeel ba ëmbaale ko ci sa am-am bu ñàkkam feeñ ainsi de suite. Ah, way way way Serigne Cheikh a bari xam-xam waaye sëñ bi yéen a fi dàq conférence yàlla xam na ko waaw yàlla ne ma Chérif Ibrahima ma ne ko ah mu ne ma min nutfatin xalaqa maa ngi la bind ci toq ma niyu boo xam ne ba mu génnee ba bër set sa ndey ak sa bàyyi dañoo sangu ji sama bopp laay wax sañ naa ko min nutfatin xalax lu ci topp fa qaddarahu ma dogal ci yow li dogal ci yow fa qaddarahu ma dogal ci yow li ma dogal ci yow ne lii ak lii ak lii ak lii ngay am nii ak nii ak nii ngay mel fii ak fii ngay jëm boo fa jógee fii ak fii ngay jëm ci sama teer sama loxo ngay teer si lépp yàlla dogal ko ci biir bi nga amee ñeent fukki guddi ci sa biiru ndey la ko yàlla dogal maa ngi ñëw te ci biir ñeent fukki guddi yooyu par tam par weeru koor la ko yàlla di soppi bu ko neexee gis nga nit bu nekk amee ñeent fukki fan ci biir yaayam la yàlla di dogal li mu war a am ak ni mu war a mel day changer nag ni sa empreinte yi di changer par dix ans bii par un naa la ko yàlla di changer weeru koor ba weeru koor muy laylatul qadri inna inna na eh, eh, inna eh, anzalnaahu fii laylatin mubaraka foofa yamxu llahu ma yacha wa yuthabbit wala wa yusbit lu tax wa indahu ummul kitaabi yàlla na léeg-léeg ma xool ne shérif def na ay point yu ko avancé lo ma effacé torox tànge bu waroon a wàcc ci ñoom bind bien mu ne léeg-léeg ma yëg ne di Maxtar Kunta tooñ na Sidi Mbay ma wàññi fanam ci tooñ gi mu ko tooñ ma war koo fay génnee ko ci fanam te fekk mu ngi waroon dund santa ma def cinquante ans anti anticiper date bi moo tax nañ wattandiku tooñ al zulmu zulumaatun yawmal qiyaama tooñ baaxul nañ ko wattandiku yàlla ne fa qaddara mu ne xoolaatal nag yow shérif bu baax summa sabila yasara fa nga jaar ba génn mu ne mu ne xajoo fa woon maa wicc leeru Seyduna Muhammad ca barab ba nga mën a génn gis nga jigéen ñi yéen a am lu kenn amul gis nga doom balaa juddu malaaka yi dañuy ñëw jël leeru Seyduna Muhammad wicc la ko pour doom ji mën a génn moo tax yàlla ne summa sëb wallahi bu du toon leeru Seyduna Muhammad ku wasin faatu doom ja nga wasin faatu waqad saqaana xaaliqul ibaadi samaana marratin bi nuuril haadi mu ni juróom-ñetti yoon bu ci nekk dina ñamal la ci leeru yonant bi ba muy juróom-ñetti yoon yëpp ba demee ci xantara dina ko lim yëpp waaw laqad saqaana xaaliqul ibaadi samaana marratin bi nuuril haadi juróom-ñetti yoon yàlla dina ko wicci leer ci biiru jigéen juróom-ñetti yoon balaa ngay judd bu mujj bi mooy balaa ngay juddu fi ngay jaar fa la koy wicc pour nga mën a génn moo tax summa sabila yasarahu bu tànk yi a génn musiba am bu njëkkoon génn day écarté moo tax yàlla di jiital bopp bi bu ko defee tànk yi mën a kepp tànk bu njëkkoon génn butit yëpp lay laawaale mu génn moo tax yàlla te foofu docteur yi ba tey xamuñu kañ lay juutu xamuñ ko ba léegi médecine trouvé gul ban moment lay juutu pour juddu dañuy jékki-jékki rek gis mu juutu benn machine mënu ko détecté mënuñ la wax ne période bii lay wëlbatiku pour juutu te moment bi muy wëlbatiku du juutu bu fa yàlla lool yuuram gi yëpp ci bakkanam yi la jëm yàlla ne maa la fa fekk xottil la ay bët te jooyuloo bënnal la paxi bakkan kenn yëgut xotti gémmiñ kenn yëgul bënnal la ay paxi nopp kenn yëgul mu ne nga génn di jigéen ñu di la bënnal jaaro ngay ñeew ñeew maa baax ci yow say ndeye ci yow. te nit rek am sage femme jur géeg ñi ci des ñëpp kenn amu ci sage femme kenn dul assisté ku dul yàlla. xar bi nga am ci kër gi lay nekk di wër nga naan day matu muy wër nga naan day matu ba am doom ci udd bi nga ne moo ne xar ma am na doom àndaale bi génn doo ko ko sangal doo ko ko sangal moom mënu koo sang te yow doo ko sangal doom ji day tiim doom ji di ko mar wala déet amul kàttan sax kàttanul sax yàbbi tuflit yi da koy wan ak deret ji di ko mar muy meem mu di ko mar di wan tuflit yi mais gis nga moom dara jooju muy wan mooy arrêté méritam sëñ Cheikh nee na boo gisee jur gi bu ñuy juree rek doom ji daal di mën a taxaw parce que wenn yaay ji dafa dafa sori te mënu koo uuf moo tax da buy juddu rek daal di mën a taxaw jot weenu yaay ji nit nag ñu di ko jàngal progressivement mu juddu yaay ji uuf ko balaa mën a dox faw mu am lu mat daanaka ñetti at ni ko won ko ni ko sa mbir du tëb rek daal di sotti ndànk ndànk ndànk waaye bu dee jur moom buy juddu daal di jot weenu yaay ji ndax day taxaw ndax ma mënu koo uuf bu amul tànk yu mu taxawee daal di mën a dox fi saa day loru kii nag moom am na ku ko uuf jox ko ko mu yóotu ko won ko it ni ko bokkoo ñoom ndax yow sa mbir par ndànk-ndànk tadri jiyan rek da nga koy def moo tax yonent bi wax ko ci xadis manta an na naa la maata man na al ajalu ma cheytan atta ani min wa taaj wal ajalatu def ndànk ci yàlla la jóge gaawantu ci seytaane la jóge moo tax ma wax leen bi gën a yé yéeme Ablaye Diop a ko nettali keroog wax bu reelu la yéen jigéen ñi dem sa déglu leen maa ngi leen ciy baalu nag ab Ablaye jóob ah Xaaji Malick Diop mu baal ma damay juum rek Xaaji Malick Diop moo ko nettali mook Idrissa Diop bu Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de tiijaan ñoo bokk benn ndey ak benn baay gàmmukat la samedi ni tey la ko nettali Thiès la dëkk ca kër Mbay Fall conférence bu ma fa doon def maag moom ak Serigne Souleymane sàmm bu baax bii ak Sidi Makhtar Kunta ñoo ànd maa doon def waxtaan wa ma ne ko ubbil ni ma defal Sidi oustaz Sidi Ahmed léegi muy waxtaan ci façon bi may wax keroog la wax wax boo xam ne bi léegi dafay daw ci sama bopp bi ci alquran muy li dëppoog li xaaj Malick wax moom ak façon bi mu ko waxee mu ne xoolal liir juddu fi léegi léegi léegi li xaaj Malick wax ban école nga jàngee nam ban école nga ko jàngee ku la wax ne lii ween la ba nga yootu ku la wax ne boo ko muucuwul du bënn sa tuññu nooy yii ngay door juddu ak ni nga ñàkkee kattan amoo benn force liir liir lay wax de amul benn force amul benn kattan tuñam yu tuuti yooyu yu sew yooyu yu nooy yooyu seex ko mën koo bënn mu ne ponkal fanaan na ca ba bër set te bënnul ngeen baal ma ngeen baal ma ci waxin wi de alaaji Malick moo ko wax de man waxuma ko alaaji ko wax ma waxaat ngeen dégg walla baax na ah alaaji Malick Diop a ko wax de mu ne waaw kañ maa ngi jeexal ndax jox xaaj Malick mu ñaan wala sëñ Souleymane Samb Hadji Malick nee yow liir lu la fi jàngal namp est-ce que dañ la dugal école mu ne kañ nga fi judd barki léegi léegi nga judd sage-femme bi sang la léegi jox la sa yaay léegi sa yaay génnee weenam jox la lu la wan ne lii ween la ba nga ne ci katab xoolal liir ak ni muy gaawantoo noonu muy def loxoom yu sew yooyu nga xam ne mënul dara ne katab ween wi te bu ko nee katab day mel ni kut bu takk ci nag wallahi bu ko nee kat day mel ni kutt woon tàpp takk ci nag kii xam na luy kutt mooy topp xar yeeg nag yi balaa nga koo dindi fa mu nekk boo moytuwul sax nga daggaale ko maa la ko wax gis nga loxoom yu tuuti yooyu seetlu leen li may wax wa fi anfusikum afala tubsirun yàlla ne bu leen ma jeex man yàlla xool leen seen bopp rek su ngeen xoolee di ngeen ma gis wa fi anfusikum afala tubsirun sa nurikumu ayatina wa fil afaqi sa nurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaq nañ ne man yàlla may dëgg mu ne danaa leen won sama bopp ci tund yu sori yi danaa leen ko won ci tund yu jege yi danaa leen won ko ci seen bopp ba ngeen xam ne man yàlla maa fi nekk xatta yatabayyana annahu alxaq wa tazumu annaka jirmun saxiir wa fika ntawa alaalamu alakbaru mu ne yaa ngi prétendre ne as lu tuuti ga te monde bi bi gën a rëy ci àdduna bi mu ngi laxas mi ngi ci biir nit nit lépp a ngi ci biiram moo tax Cheikh Sidi Ahmed yi indi malaanu wasifa bastu ak xabdu la bastu ak xabdu la moo tax summa inda inda buluuxi sabaati suma nuqil dañ bëgg nga lem malaan mi ba toll ci juróom-ñaari per firi lem bi mooy li muy tuuti tuuti moo symboliser àddina ak laaxira firi bi nag mooy daj na fépp yàlla jël la dëxëñ la ci biir ngay àddina di àllaaxira xoolal ma konti xale bi wa loxoom yu tuuti yooyu est-ce gis ngeen loxo liir technicien gis nga loxo liir gis nga ko nim tuutee bu ne katab weenu yaayam as loxo yootu ween wi ak ni mu yàkkamtee gis nga tuñam yi ni mu tuutee gis ngeen tuñu liir ni mu tuutee faju dara mënul dara te cus wi bënnagul est-ce que am na kàttanal bënn cus wi bu kàttanal yàlla ñëwul mu ne ko katab sex muucu tëkk mi génn ween wi ne tàcc tëkk mi génn xam nga luy tëkk day xaw a jaune mooy meew mu njëkk boobu moo koy dëgëral ay yaxam premier meew boobu mooy dëgëral ay yaxam Ablaye euh, Hadj Malick Diop ne yow liir boo mënee bënn nag weenu ndey te sa tuñ yu tuuti yooyu mu ne aw ponkal fanaan na ci ba bër set te bënnut xam ngeen li ma wax jarul firi maa la ko mu teg ca moom alaaji Malick Diop mu ne waxuma ponkal waaye ponkal mu am sikkim fanaan na ci ba bër te ween yu bënnul mu ne kon xam nga ne la ko bënn du liir bi kàttanal suñu borom la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Vincent Mm. xam nga ab orientaliste la mustashrik maanaam tubaab bu jàng arab mm. Montaigne dafa dajeeg Serigne Cheikh mm. di critiquer Serigne si di ñaan di tifli mm-hmm. ñu koy raayoo mm-hmm. mais c'est trop xawma waaw dégueulasse microbe la mm-hmm. Serigne Cheikh ne ko ah waaw loolu de wax nga dëgg waaye du ñëpp tifli dañuy ëf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 ñu bari xam nañ soo demee këram man li ma bëgg ci nit moo fa moom nga fay fekk ku sant Mbàkke ku sant Si ku sant Aydara ku sant Kunta ñépp dañ la fa fekk te doxewu ko waxewu muy borom xam-xam piir yii doomu sëriñ si di foyee lam ca xam kenn xamu ci genn wàll te mënoo ko xam ci moom allahuma la aduru su ko defee nag kon maa ngi leen koy dënk yéen ñu bari xam ngeen ko ak man maa ngi leen koy dënk fu ngeen ko gis tàllal leen seen loxo mu ñaanal leen ku ci mën dem këram it demal këram sàkku ci moom ñaan wàññewul dara nit ku yàlla baaxal la nit ku yàlla baaxal la waaye mu wàcc woyof modeste te yéen xam ngeen ne man du ma wax ci nit dara dul yàlla su ma gisuloon ci moom yàlla it suñu àndee danaa ko présenté waaye yem ca waaye yàlla yi kese laa gis ci moom doxewu ko waxewu ko ku mën na dimbalaate it la fa tabaarakallahu te naa ko ñi nga dimbale bu ñu la doon jox ku ne 5000 francs am nekk nga millionnaire bu yàgg waaye nag loolu mos am ci daara ji daara mosul neex de léegi la may nettali benn koo xam ne kilifa la ci nguur gi wax dëgg yàlla nee na ba mu daan ñëw këram di fa toog nee na keroog bañ ko falee la ko gëj gis <laughs> te wax dëgg yàlla te ku ko lëjaloon la. waaw waaye ma dimbale ma ko sonn mënu ma ko jot. waaw ma ci ginnaaw oto sëriñ mii moo ne ma bu ko woote bis ni ki tey keroog ba léegi nag moo may woo ma ne ma koy dawloo fi mu ne nii ci ginnaaw yàlla ci barke barke yonent bi dañoo ànd ci oto ma woo ko jot ko def ko mais libre moom mu dégg ne ko ministre naa de mu ne maa ma ne ko yow kenn mënu laa dégg mu ne maa ngi lay waat waatuma waatuma waatuma bañ dëkk mbuur ma waat ko jot ko mu ne ma dinaa la woo woowul ma ba ma dajeeg sëriñ bi ma ne ko woowuma ba léegi mu ne bu ko wooti bis ni tey ñu ànd conférence fii ci alaaj Moussa Gueye mu woo ma ci ginnaaw ma ne ko damaa jàpp damaa nekk ci conférence ma pare woowuma ko woowuma ko ba fan yi mu ne day dem yoo vacances xaw ma ci àddina woo ma téléphone ne ma waaw yow damaa bëgg a dem vacances fan nga nekk ma ne ko ba léegi damaa jàpp mu ne rappelé woo ma ne ko yow bu ma la waxaan rappelé ma doo ma rappelé di mu ne man damaa amul jot ma ne ko waa man am naa jot waaye man damaa jotagul fi rappelé la man daal maa ngi ci loolu fi mu ne nii waat na ma ma ne ko sëñ bi ba léegi nii de yàlla seetlee dama ànd ak sama Aidara ak Tijaan yi rek dama amul jot ba léegi. te nag du ma mës am jot fi mu ne nii te comme sëñ bi wax na ma wóolu naa man lépp lu ma wax rek gëm naa ko. ndax wallaahi ci leer lay dox te lim leen wax mooy dëgg ci moom. Mm-hmm. tarbiyu mag ñi tarbiyu na mag ñëpp ba am ci ñoom leer goo xam ne. moom mooy daw ci biir deretam mu ciy liggéey lépp lu mu bëgg ci salaatul faat yi ak ci yàlla ak ci yónnent bi yàlla seede na ni yàlla may na ko loolu alaaj si si jingee ngi nii duma bàyyee may wax loo xam ne loolu amut mu ngi nii da ko sopp sopp sopp bu gëmeewu ko yàlla te yàlla ak mag ñi rek a tax sëriñ bii noonu ñun ñi fi toog nii ñëpp foog naa ni kenn ku nekk ci ñun amel na ko cofeel ngir yàlla ak yónnent bi kii kenn mënu koo fay man daal li may wax bët bu set mooy nañuy saxoo dara rek Fatiha ak salaatul Fatiha mooy fas mag ñi moom lañ daan war di tàgg ji moom lañ daan doxee ji soxla moo daan xeex ak moo daan yonti moom la daan xeexee mooy fas mën na lu ci àddina dañ koy jàngal Fatiha ak salaatul Fatiha yàlla may ko jàmm ñaari faa yi mooy fas wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah jeex na ñaari faa yi mooy fas ah góor bii mooy jigéen Fatiha mooy góor. salaatul fatih mooy jigéen ku boole góor ak jigéen ren ba déwén yaakaar ci doom yaa rawatina muy jigéen ju mën a am doom wala déet nga boole góor ak jigéen jigéen ji mën a am doom feebarul dara dalu ko góor gi mën a am doom feebarul dara dalu ko ah mois d'août tey la 4 août ba déwén 4 août 2019 di nga dégg dara bàyyi leen ko de ci la bokk gis nga yiw maa ngi leen di wattandiku loo am na confi yàgg na mat na fukki at léegi conférence bu ma doon def fii fii cité Junko wallaahi benn kañe génn te ki ko defoon tuddee na ma doom xam nga ñàkk xam ne mu jóg rek bule kañe gi ma ne ko ëpp naa def mu topp ko bule wat tànk ba ne tàpp bàyyiwu ko ba laaxir dee na bu yàgg am na ku ñuy wax alaaji kurdi yu gay goro sëriñ Mor Diop la na taalibi sëriñ Mor bi waaw kañ gaañu na ci at yii rek matagul ñaari at xaw bokk néegu sëriñ Babacar si la woon yàgg ci sëriñ Babacar alaaji kurdi yu gay moo may sëriñ Mor Diop soxna moo ma ko nettali ci gémmiñam leer nga xam mu ne ma shérif dama lay déglu lu bari sa orma ci mag ñi mu ne ma loo ci wax doyul mu ne ma gis nga fii ci kër Serigne Babacar si laa gis benn xaj ma ne xaj ci kër Serigne Babacar lu mu fii def mu ne ma ma jël yet dóor ko ko mu ne xaj bi yuuxu ne ma kurdi yu gay man ngay dóor billaahi kurdi yu gay man ngay dóor nee na ma ne lii de yow du xaji kese laa ilaha illa mu ne fekk sëñ kër mu ngi sëpp xam naa daf ko yëg génn ne ko kurdi yu gay bàyyi leen lu ngeen gis ci kër gi dóor ko am nga sens boo waxuloon laa ilaha illa duma du mën ci yow dara ndax du xaj mu ne ko waay laa ilaha illallah bi nga tax moo moo bi nga wax moo tax di nga fi yàgg bi mu ngaa ñëw yàggul yàggul est-ce que mat na ñaari at wala ñetti at ci la yem am kilifa jërëjëf kon sëñ bi kaay jël waxukaay gi buñ ko toppee du jeex te jigéen ñi xam naa ne fi mu ne nii ku ci am borom kër gut mel ni Sidi Kunta xol baa nga ca suufu suufu suufu suuf ah, boo demee sax boo xamee ne may waxtaan mu ne kooku nga xam ne dafa wax ba wow waxam eh, wóor na ma ñibbiseegul léegi waaye nu ñooñu ñëpp maa ngi leen di baalu rek maa ngi leen di baalu bu ko defee ngeen toog ñu jox kii mu def yenn présentation yi rek ñu ñaan bismillah ñu jox imam bu baax nag tabarakallah ndax ñun dañu am philosophie buñ ñu yare mooy magu aada sax warul yëkkati kàddu ñu am lu ñu ci teg rawatina kilifa diine xam naa dina diis ci ñun ma tax sànq ma wax ko Cheikhu ma ni ko ah, dina diis lool nag bu ma sañoon ki ngay gërëm dafay teew te kilifa su xase yëkkati kàddu du teggin ak ndaw lu mënti doon nga ciy teg ay kàddu te li nga ciy teg ngeen baal ma ci kàddu yi lu ñàkk xorom lay doon moo tax dama ni ko woon nañu gërëm ñi ci jàpp ba pare su ko defee bu ñu joxee incha allah Chérif Ibrahim fu mu yemale kàddu yi rek muy foofu ah renouveler njéggal bu baax a baax nag xam naa bu ñu la nuyoo jox la sa wàccuwaay tabaarakallahu jox la cër bi la yàlla jox ci ñun ndax li nga wax dafa am fu mooy yóbbu mooy reconnaissance reconnaissance tazakkar jamili is kunta nutfa wala tansa taswiri li chercheka fi hasha wa sallim li al ashya waalam bi annani usarrifu ahkami wa afalu ma asha yàlla nee na na nga reconnaissance ci xéewal yi ma la doon fekkee bi nga nekkee toq ma nii ci sa ci sa ci sa leggi ndey waaw tabarakallahu <laughs> waaw parce que parce que itam ñoom loolu mooy seen cër waaw dañu war a fekk fu ñu fekk ndongo daara buñ la waxee bu la inspiré wul rek kon demal yëraat sa àlliwa waaw nga fekkoon nag ak tabarakallahu sëriñ si sa jëng xam ne maa ngi ko njëkk a gisee ci gàmm boo xam ne sama sëriñ sama baay moo ko doon def fii ci cité Jinkob Pape Alioune Ba waaw <laughs> mi ngi fi nag waaw mi ngi fi tey waroon na ñëw waaye tabaarakallahu rakkam sëriñ Omar Ba mi ngi fi tabaarakallahu moo tax euh, bu ma leen nuyoo ki ko fi teewal muy ki sànq laata ngay yëkkati kàddu ki doon woy sànq mi ngi yaroo ci keppaaru sëriñ Omar Ba bu Seydi Hadj euh, Serigne Alioune bu Seydi Hadj Malick waaw waaw xëy na ñoom dañuy demee ma waaye itam dañuy demee xaal te xaal nag boo xasee dugg ci nit léeg pour mu gis xorma day daal di jafe waaye ñu yóbbu ko rek ci cadre ndongo daara bu yëg boppam waaw parce que am na loo xam ne li ko yëngal du diine du tariqa ay ndënd laa ki sabar ak tama moom mu ñëw tabarakallahu teewal xadara sëriñ Alioune Ba sànq bi nga bi la bi la shérif di jox ba nga ko war a delloo rek mu yëkkati xaala tax tabarakallahu te bàyyam nag di muqaddam ci kër ga dëkk fii ci Caaroy ah daayira bi nag di gërëm di gërëm shérif Ibrahima. parce que yàlla certes mooy def mbiram nu mu ko neexee waaye li gën a metti ci àdduna mooy taxawal mbir moo tax boo gisee premier soutien doo ko gëmee daaw bi ñu ko waree taxawal dañu def délégation ñu xaaji Souleymane Cheikh Oumar Al Amin dem ci moom waaw parce que nag moom moo ko wax léegi kër Seydi Xaaji Malick boo fa nekkee di ko dundal foo ne foofu ambassadeur nga fa ñu xoolee ko bët boobu nag dem ba ci moom mu joxe ci ndigal def ci ñaan ba pare soutenir leen nag ñëw taal otoom yàq gasoilam ànd ak délégation ñëw taxawee ko kon reconnaissance boobu bu ñu ko amee mooy bu ñu doon dem sans édition sax incha allahu taala dinañ ñëw ba ci yow waxtaan ceeg yow ñaan la ci ndigal nga ñëw taxawe ko bu ñu amee itam ñoo xam ni tabaarakallahu ñoo ko doon taxawee nekk ñu baax lool ndax ñoom ñooy ñun ñun ñooy ñoom waaw muy oustaz Mouhamad Ndiaye bi nga fekkoon daaw muy développé ren dañu am ngànt ca CICES euh, ñu fay sargal sëriñ Sidi Ahmad si bu sëriñ Babacar moo tax ñu nekk ci ay itte moo tax ren ñu ñu ñu tabarakallahu ñu jël ñi waaye bi ñu paree ci loolu ñu xaj bi yembay ñëw na teew mi ngi nii moo ko doon woy daaw ak saaxoog tabarakallahu ñi mu ko àndal ñooñ ñëpp ñu ngi leen di gërëm waaye Chérif dafa wax sànq ni dañu beral loxo <laughs> góor ñi léeg du du du léeg nag du du du lu rafet ñu ñu bind góor ñi rek bàyyi jigéen ñi loolu loolu rafetul xam naa séeréer yi ñoo ko def waaye boo liggéey rek ñu jëm ko xalpulaaral tabarakallahu jéem a jiital jigéen ñi soog ci te góor ñi te daanaka ñi mu tudd ñu bëri tabarakallahu Chérif Ibrahim tudd na leen ku ci mel ne délégué de quartier ñu demee noonu xam naa jukki ci rek suñu yaay yi tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñi ngi ci koñ bi nekk yaayu daara ji xam nga Saalum dañ jàng waaye dañ mën na diingat nag moo tax daanaka rek li leen dal di leen dal niñ mën a jàngee lañ mën a diingatee balaa nga leen di doy fu ne danañ fa jaar ak yow bu Saalum Saalum ba la ne yaa ma doy rek dee nga ndax dañuy jàng te balaa ñu laa doy dinañ la natt mu ne góor gi jóge Saalum bind benn ñëw rang lu yàgg mënta gis Serigne Babacar nee na mu bind benn lettre joxe ko ne nañ ko ko joxal Serigne Babacar nee na lettre ba kat mu ngi ca bind rek min waraa i Ishaq mu ne sëñ Babacar di recevoir ba jot ki indi lettre bi ne ko tax négal tuuti mu jox ko mu wëlbati kayit gi bind ci Yaaqub jox ko ko góor gi dem ci ruq ba toog mu ne ci yóbbu lettre bi ne ko loo ko wax ba mu tontu la ba nga toog mu ne ko góor gi kat dama ko doon testé waaye xam-xamam ëpp na àddina mu ne ko min waraay ishaq ishaq ci langu arab ci ci arab luga mooy fu dara newul mooy kër ga bàyyiwuma fa dara yaqub ci langu arab bële suuraani la moo tax yaqub ci langu arab mooy sàq mu fees mu bind ko ne kër ga dara newu fa sëñ Babacar tontu ne ko fii daraa ngi fi comme ne nañ ko daraa ngi fi mu dem ci ruq ba toog xaar ñu jox ko lifine fi na ba sëñ Babacar si recevoir ba noppi woo ko mu ñëw mu ne ko loo bëggoon mu ne ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam ci wàllu yàlla nee na mu woo sëñ Abdou ne ko jox ko nangam ci magasin bi jox ko nangam jox ko nangam jox ko nangam ba yooya mag mu ne ko wàllu yàlla gi nag tàllalal sa loxo te bul xeeb li ma lay defal nee na nga nganam ne ko taf ne ko insha allahu mu ne góor gi keroog la géej ci waawoon ndax affaire am baax yàlla na ci yàlla sukkandi ba baaxal suñu affaire yëpp kon jërëjëf jërëjëf ñu jël kàddu gi nag jox ko imaam mu ñaan ñun ñëpp ñu tàllal ci ndigalu alaaji Souleymane ak alxaaji malik Cissé ñu jox imaam mu ñaan muy kàddu gu mujj imaam nag bu ko delloo ñaanalal ñëpp ndax yow la fi yàlla teg nga doy ñu ci jàkk ji waaye doy ñu ci baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ziare ñëpp di ndokk ñëpp ci bés bi di ñaan ci yàlla li fi wadd ci leer yàlla nañ ko yàlla boole muurloo fa tabaarakallaahu jotaay bi yàlla baaxal na ko imaam eh, eh, Chérif yàlla dafa dogal imaam jenn dafa génn àddina mu dénkaane woon ni nañ ko yëgal bu génne àddina nañ ko yëgal shérif doom yee yëgal ko shérif shérif ñëw xool ko ba noppi ni nee na nañ ko yóbbu Tiwaawan mu ne kon pare waajal leen ko après ñu dëje Tiwaawan ñu dëje Tiwaawan fa tabaarakallaahu ñu téeral ko fa ñu téeraloon seen Haaji Malick sëñ Mbaye sa Abdou moo wax loolu mu ne fii ñu ko tëral fii lañ tëraloon Seydi Hadji Malick waxtaan ba noppi ñu jullee fa tabarakallah ñu jóg dem armeelu njandoxum ñu yóbbu ko fa ba ñu paree ci bàmmeel ba teg ko ci koos ba war ko dugg ñaar cëppeelu ma summi sama garam bu bëgg cëppeelu shérif mu ne ma bul cëppeelu maay cëppeelu man ko déet cër ëpp na de maa ngi bëgg pour teral ko parce que kilifa la moom am la mu la la la tax mu cëppeelu man xaw ma ko mu ne ma déedéet man maay cëpp maa leen di ñetteel mu ma ma ma toog mu cëppeelu mu ñetteel ñaar ña ba ñu suulee ba noppi ñu def ñaan ba noppi dama téye ci loxo moom mi keroog ñu dox ñaadam ñaadam génn armeel yi man ko shérif góor gi ngeen suul léegi dafa am kàddu gu ma waxoon ci yow def ma ne woon nee nga koo jóbbal koo jullee wala nga jóbbal ko boroomam bala nga teqali kook moom teg ko ci sa loxo maam mu ne ma waaw kay defal naa ko ko man ko kañ ko defal naa ko ko léegi laa laata may génn mu ne waaye am na ku ma ci gën a fort encore te def na ci la mu ci def man ko kookan la mu ne sëñ Mbay si Abdou bi ko jullee ma ne alhamdulilah mu ne waaye am na ku ko gën foor encore te mi ngi fii man ko kokkan la mu ne boo nattee armeel yi ba ci ba armeelu Serigne Cheikh mutul juróom fukk mètre sa Serigne Cheikh a ngi tëdd fii mu ne ku ñu suurata fii rek sa yaram araam na safara ndax Serigne Cheikh. miir bi rek dox diggante seen diggante eh, fan loolu. waaw dañoo am fii benn benn décédé. ñu ne ñu ngi koy robee armeelu Pikine waaye fa lañ koy jullee ci jàkk jàkk jooja ñu jóge fi Imaam jàll mu ne moom boo demee nga jullee ko tabaarkalla ah wax dëgg yàlla kontaan nañu lool ci jotaayu fa tabaarkalla noonu na li tax ñu am cofeel ci moom mooy suñu suñu waajur suñu Babacar dafa am benn sëriñ bu muy daan yebal ci sëriñ Alpha mu boole kook sëriñ Alpha sëriñ Alpha jël sëriñ ba boole kook sama pap mu Sëriñ Aliou Haydara bi nekkoon cees sëriñ boobu bi mu génn bi sëriñ Babacar génnee àddina sa papa bi mu demee bi ñu demee dëj bi ñu demee Tiwaawoon ba ñëw sëriñ Alpha moo leen wax ci yoon wi ni Babacar am na xale bu mu yóoloo yóbbaale waaw bi mu ñëw kër ga moo loolu mu ne sëriñ nee na sëriñ sëriñ Alpha nee na sëriñ Babacar am na am na xale bu mu yóbbaale noonu ñëpp ñëpp yaakaar ni xëy na kenn la ci doomam keroog bu sëriñ génnee àddina ñu ngi rawante juróom benn weer moom sëriñ Babacar keroog bi sëriñ génne àddina bi sëñ bi sama papa demee ba ñu demee denc ko ba ñëw suñu alfa waxaat leen ne mu ne sëriñ kii mu leen waxoon ne sëñ Babacar moom la yóbbaale mooy kii mooy sëriñ moo soppoon sëñ Babacar soppa boo xam ne su ko joxee loxo rek foog bu mattaale loxo bi ndax waaw ndax cofeel ndax cofeel waaye du wax ma màkk ma matt bu metti de <laughs> tabaarakallah kon chérif ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay du sa wàccuwaay sax mais ñoo ngi lay jox sa wàccuwaayu maam directement fa tabaarakallah mel na ni moom rek moo toog ci suñu biir melente yonente bi toog suñu biir mais mel leen Cheikh a toog ci suñu biir fa tabarakallah kon nag fa tabarakallahu yàlla na yàlla bàyyi la fi ngay sagu euh, département bi yàlla na yàlla bàyyi la fi nee na ma itam moom mi jàkk naa ci làmmañam mu ne saa yu demee ziar Tiwaawan nee na du àgg sax ci raw da ya nee bu demee ba jub fi fi fi fi tiwaaw fi fi suuf tiwaawan yem nee na fa lay taxaw rek joxal siyaaram te te du xam ne àgg na fa tabarak loolu Moussa ko digal ci sama ñu Serigne Cheikh Serigne Cheikh nee na bu musaan jógee tukki di ñëw nee bu tolloo avion bi bu tolloo euh, Casablanca fa lay fa lay joxe siyaara ci Cheikh ci Cheikh Ahmad Tijaan yi mun ko Cheikh sa mbir a ngoog waaw kon nag loolu ay àggukaay la yoo xam ne nit a cee àgg rek nit a cee àgg ba ca des mooy bi mu waxoon sànq ci ñaan ci li mu wax ci ku jëg dafa am boo wax ba yàgg na fi dañoo dem ba ni tudd ñu tudd ba noppi booba taa dañuy daan faraatul faati yàlla fajala ci aajo yi adduna ba jàllale ci aajo yi àllaxira mu mu neel ak mu ak mu ak la mu ni pour mu jàllale la ci nee na ni muy yómbee moo ni mu ngi mel ni nga taal ngànja jël benn kaasu kafe teg ci biir pour tàngal ko mu ne xaw ma ndax da nga ci jot xaw ma ndax dina tàngam de waaye jotaat ko jotaat ko du yombaat nee na salatul faatiha noonu lay def ci aajo yi adduna ak bu àll aajo kon ñu jàng di sir hajmaari joxe joxe jàng di sëñ Babacar si joxe comme nañ moom la ñu tuddee euh, ngonto gi yal yàlla nangu yépp ci seen barke bi jaay Seydi bu jot waaye itam ak ci barke shérif bii toog fa tabarakallah hmm. allahu laa ilaha illa huwa laa taaxuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi l ard man dha alladi yashfau indahu illa bi iznihi yalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi illa bima shaa wasia kursiyuhu samawati wal arda wala yauduhu xifsuhuma wa huwa al aliyu al azim bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufaan ahad bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa wa min sharri gaasiqin iza waqab wa min sharri nafasaati fi l-uqadi wa min sharri xaasidin iza xasad bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas min sharri l-waswaasi l-xannaas allazi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min al jinnati wan naas allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadarihi wa miqdaari azim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadarihi wa miqdaari azim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 wa taqdi lana biha jamii alxaajaati wa tutahiruna biha min jamii sayiaati wa tarfauna wa tarfauna bika wa tarfauna biha indaka ala darajaati wa tuballiguna biha aqsa algaayaati min jamii alxayraati fi alxayaati wa baada almamaat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdu lillahi rabbil alamin fatiha